ñoo ngi sant borom bi subhaanahu wa taala di julli di sëlmal ci sunu yonente Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu wàccee ci kawam waa may xeewal ak jàmm moom ak i soxaabaam ak képp koo xam ne topp na xàllam fi bàyyi ba kerek saa di taxaw gannaaw ba loolu wéyee ñoo ngi nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo ñu dalal muy waa Live Techno TV daa mbégte ak kontaan loolu ngir fàttalanteeg yéen benn buntu ci buntu li nga xam ne moom mooy lislaam te moom mooy mag ñi te buñ ko waxee moom mooy Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ña nga xam ne ñoo àndoon ak moom ak ña toppoon ñi nga xam ne mooy seen yoon bekk rek sant di ñoo ñëwee génération yooyee naka lañ doon dundee li nga xam ne moom mooy weeru koor dangay fekk ne weeru koor ci ñoom weer wu màgg la woon loolu moo tax lu jiitu weeru koor lu toll ne juróom benn weer dañ doon ñaan yàlla yàlla may leen ñu fekkee li nga xam ne moom mooy ramadaan waaye nag ba ramadaan wee tamit dinañ toogaat juróom benn weer yoo xam ne dañuy ñaan borom subhanahu taala mu nangul leen li nga xam ne moom mooy ramadaan lan moo waral xel boobu mooy weer gi màgg màgg bu màgg moo tax ñoom ñuy dundee li nga xam ne moom mooy loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo jiitu ci mag ñi loolu moo tax benn woykat arab dañ naan humul kibaar humul kibaar mu ne ñoo ñee ñoo ñooy mag ñi buñ naan mag dëgg-dëgg mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabam kan moo ko mag ci lislaam ne wa mimman nashaa'u min ba'dihim hum sigaar mu ne ñi nga xam ne nag ñoo sos seen ginnaaw ñoo ñëpp ay xale lañ ci diine ay xale lañu ci diine ay xale lañ ci li nga xam ne mooy xam-xam waaye ku xool dundu saxaaba yi nga xam ne keneen ku ñëw ginnaaw loo bari bari daraja li nga xam ne seenoo li nga xam nga xam ne mooy salafu saalih loolu moo tax dañ si doon bari xeetu jaamu yàlla tey bokk na ci jaamu yàlla yooyee mooy Jibriil ci boppam da ñëw sax di nafar ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne mooy alquraanul karim ndax alquraan nag moom mooy weeru alquraan wala weeru koor ci boppam moom mooy weeru alquraan يالنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من غير قرد يغا خمنا تيلا نيو واتي لغا خمنا من موي القرآن الكريم لول متى صلاف الصالح دانيو يتيوون لغا خمنا من موي غير قرد تي نجكلنتي تي أي جف يباخ تي أي جام يالنا يو خم دانا لين جريم ألق تي كانو برومي سبحانه وتعالى ndax foog ñu xam lan moo ñu taxawoo na borom subhanahu wa taala ne wéeru koor dañ ci jëlal li nga xam ñom salaf salih dañu xamone lan moy importance li nga xamne ne moy ragal yàlla ndax xamone nañ ne ragal yàlla kesse mo meuna a muccal jaam bi ëllëg ci kanamu borom bi subhanahu wa taala ndax yàlla ne ni inna ma taqabbalu allah min al muttaqin yàlla ne ñi muy nangul moy ñi nga xamne ñom ñoom ragal yàlla kon xam nañ ne pour yàlla nangul len faaw ñu am ragal yàlla te xam nañ ne wëru ko dafa bokk ci yi nga xamne day tax nit ki am li nga xamne ne moy ragal yàlla loolu tax borom bi subhaanahu wa taala ne laallakum tattaquun amaana ngeen jële ci li nga xam ne mooy ragal yàlla kon nañu xool salafu saali naka lañ doon dundeek weeru koor ak alquran yitte biñ ko joxoon nga xool seen i mbir ak alquran da ngay fekk ne salafu saali dañoo nekkoon ñoo xam ne dañ doon dund alquran di ko jàng waaye di ko settantal dañ doon jàng alquran day gis koo xam ne benn fan sax dana ci wàccee li nga xam ne moom mooy kaamil alquran rawatina ci fukki fan yi nga xam ne ñoo mujj ku mel ne ki nga xam ne moom mooy Abu Daawud nee nañu sag guddi ci fukki fan yi mujj yi dana xatma alquran benn yoon mooy dana jàng al alquran kaamil benn yoon bu ñu xoolee ñun ak ñoom ñun tey jii sag guddi yi nga gis koo xam ne dana toog 2 heures de temps 3 de temps di manipuler li nga xam kon bu ñu leen nee saxaaba yi sax guddi danañ wàcc alquran wallahi war laa yéem ndax nit ki mën na fanaan ci téléphone am ma ba ngoonte du ko wàcc kon buñ leen nee nit ki mën na fanaan ci kaamil alquran suba ba ngoon du ko wàcc kon loolee war nga koo gëm te alquran cafkay alquran bokk la li nga xam ne mooy cafkay di seetaan li nga xam ne moom mooy téléphone moom ci xolle nañ ne ki nga xam ne moom mooy imam Saafi'i moom sag ñaari fan ci fukki fan yu mujj yi da doon wàcc li nga xam ne moom mooy alquranul karim bi mu demee ba mu des li nga xam ne moom mooy ay ñaari fan ñetti fan da ko mujj woon sax guddi muy wàccee li nga xam ne moom mooy moom mooy alquranul karim donc day gis ne kon salafu saali ñoom dañoo jàppoon ne loolu traite boo xam ne nit ki da ciy war a ci ay jaamu beneen bi ñoom ñu doon bàyyee seen xel ne est-ce que danañu fekkee waat li nga xam ne mooy beneen ramadaan kon ramadaan bi dañ ciy war góor góorgóorlu ci ma ci ci wàccee ci li nga xam ne moom mooy ay kaamilu alquranu karim ki nga xam ne mooy ibnu rajab rahimahullahu taala dafa ne weer bii di di weeru alquran la weer la boo xam ne dañ cee war jàng li nga xam ne moom mooy alquran donte yeneen bi sallallahu alayhi dafa tere ku wàcce alquran lu yées nga xam ne mooy moom mooy ñetti fan lan moo taxoon nag salafu saalih ñoom ñuy wàcce alquran li nga xam ne moom mooy benn fan dañoo ne jamono la traite la boo xam ne la ñu tere woon day mujjee dagan ci li nga xam ne moom mooy jamono ji ndax jamono ji la boo xam ne borom bi subhanahu wa taala moom moo ko barkeel te ay fan la yoo xam ne dafa lim nekkul fan yoo xam ne yu bëree bëri la bu ñu xoolee salafu saali ak li nga xam ne moom mooy naka lañ doon naafila li nga xam ne moom mooy weeru koor da ngay yéemu ci borom bi subhanahu wa taala am na ñoo xam ne dañoo dañ doon taxaw guddi gépp di ko naafila moo xam ci fukki fan yi mujj la ak yeneen fukki fan yu yu mujj yi ñoom weeru koor jéem dañ koy fanaanoo di di di di naafila ndax dañoo gëmoon ne yonent bi sallallahu alayhi képp koo xam ne taxawu na naafila weeru koor gi ngëm yàlla ak sa tuyaab rek tax yàlla lay jéggal say bàkkaar te ñoom dañ doon bëgg yàlla jéggal leen seen bàkkaar kon leen salafu saalih yi nekkoon ñoo xam ne ñoo doon ànd ak yonent bi sa alayhi wa ñu woon sax te saa su nekk dañ doon yaakaar ngir yàlla jéggal leen seen bàkkaar ndax xam nañ ne ay nit lañu rawat na ñun ñi nga xam ne da ngay gis koo xam ne moo lay garanti li nga xam ne moom mooy jéggal la li nga xam ne moom mooy moom mooy ci fukki fan yi dañ doon génnee li nga xam ne wala ci weeru koor naka lañ ko doon mooy dañ doon génnee sarax lu bari bari loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettal nañ mu ne day daa tabe tabe sax li nga xam ne mooy ngelaw boo xam ne day romb nam joxee moo gën a bari moo gën a foor kon ngelaw boo xam ne day romb kon loolu day wane ne salafu saalih yi dañ doon góor góorlu ci li nga xam ne moom mooy ci weeru koor gi xam nañ ne weeru coronation la weer la boo xam ne borom bi subhaanahu wa moo dem man maa koy fayal sama bopp ana ajzi bihi mu ne weeru koor man maa ko moom man maa koy fayal sama bopp kon loolu moo tax salaf saalih xam bi ñu xamoon ne yàlla ci boppam mooy fayee jaamu yàlla yëpp waaye lan moo tax yàlla jël jaamu yàlla jiidu koor mu ne man maa koy man maa koy fayal sama ndax jaamu yàlla koor dafa làmboo mbooleem jaamu yàlla yi làmboo na jàng alquran làmboo na tudd yàlla làmboo na julli làmboo na sax ak muñ te yàlla innama yuwaffa saabiruna ajruhum bi xayri xisaab nee na ñi nga xam ne dañuy muñ man maa leen di fay tudd ànd ak li nga xam ne moom mooy mooy benn rek la kon salafu saalih boo xoolee mbooleem jaamu yàlla yi li nga xam ne day tax ñu jege borom bi subhaanahu wa taala dañ si doon góorgóorlu ci li nga xam ne moom mooy weeru koor ndax bu ñu bàyyi benn porox ndoll boo xam ne war nañ fa mën a sàkku tuyaaba lu dul ne sax dinañ fa def dara pour mën a sàkku li nga xam ne moom mooy tuyaaba dañuy neen nettali kenn ci solofu soali mu ne daa xëy gis na ne amul benn jëf bi mu war a jëf boo xam ne war na ko mën a jural tuyaaba mu ne xaaral ma dem marché lan moo ko yóbbu marché mooy ku mu romb rek mu ne ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu allahu akbar ñii ñoo bëggoon yiw ñii kon nigoon nañ ne yiw moo leen di jariñ ndax yàlla moo ne fa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa na ngeen yóbbal te yóbbal bi gën mooy yóbbal boo xam ne ak ragal yàlla loolu moo tax salafu saalih bu ñu bàyyi benn occasion lu dul ne dinañ fa jéem a màng jéem a sàkku li nga xam ne moom mooy ay tuyaaba rawatina li nga xam ne moom mooy weeru koor kon salafu saalih ñoom daawuñu woon sant li nga xam ne mooy seen i waxtu bokk la ñun ñi nga xam ne nag sànq waxtu dafa yomb jamono ji day gis koo xam ne waxtu bi muy nu muy demee doo ci sax bàyyee doo ci bàyyee xel léeg-léeg nga yor sa téléphone di xool mbir yoo xam ne doo ci sax bàyyee xel waaye salaf saal yi dañoo xamoon importance li nga xam ne nag mooy waxtu boobu moo tax dañ ko doon dundale ci li nga xam ne moom mooy jaamu borom bi subhanahu wa taala loolu moo tax ibnu qayyim al jawziya nee na sànq waxtu moo gën a garaaw li nga xam ne moom mooy dee mu ne dee ndax dee day dox sa digganteeg li nga xam ne mooy àddina rek te waaye sànq waxtu day dox sa digganteeg li nga xam ne moom mooy àllaaxira ndax day tax ëllëg yawmal qiyaama nga daal di dekk koo xam ne ku perte nga lan moo tax salafu saalih daawuñu woon sànq seen i waxtu ndax dañoo xam ne sànq waxtu da laa mën a jural ay mbir bi si njëkk mën na laa jural sa làmmiñ ba da nga koy tàbbil loo xam ne lu neexul moom bi subhaanahu كذلك من التابل سي بج بمي جيس خول لو خامن لو نيخول بروم سبحان تعالى من التابل سي نوك بمي ديغ لو خامن نيخول بروم سبحان تعالى واي من التابل سي تانك سا بمي جيم فو خامن فو نيخول بروم سبحان تعالى كذلك من التابل سي لو بمي تي لو خامن لو نيخول بروم سبحان وتعالى kon lool moo tax ñoom ñu xamoon lan mooy njëriñu li nga xam ne moom mooy waxtu rawatina waxtu yi nga xam ne moo gën te moom mooy waxtu li nga xam ne moom mooy weeru koor moo tax ñoom salaf saalih dañ ko doon dundal ci ay jaamu borom bi subhanahu wa taala waaye ñu ko doon dundal nag ngir roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen salaf saalih dañoo nekk nit ñoo xam ne dañ doon roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci seen i wax ak seen i jëf dañuy jël kenn ci ñoom rek ku mel ne Abdullah ibn Umar nee nañu benn bis da doon daa yëg ci ak mbaam mbaam bi di dox di dox ba yegg ci benn place rek mu daal di daanu moom Abdullah ibn Umar ñu laaj ko waa sëñ bi yow lan moo tax nga daan mu ne damaa gisoon benn bis yéen bi saasam dafa ñëwoon ba fii mbaamam tëb rek yéen bi saasam daan mu ne ma dem ba jàppe ne sa loolu est-ce que du sunna sa xaaral ma ñëw di daan nga xam ne pour ñun pour bëgg yéen foofu ñooñu bëgg yéen dañ ko doon def nekk wax nekk jëf waaye nekk li nga xam ne moom mooy ak pas-pas boo jëlee ñi nga xam ne ñoom ñooy salafu salih comme ba tey Abdullah ibn Omar moom bis jox nañu ko ab xaal mu ne moom mënul lekk xaal bi lan moo tax mënu koo lekk allahu akbar mu ne ne xamul yonent bi saa sallam bu muy lekk xaal bi fan la tàmbalee ndax daa tàmbalee droite wala daa tàmbalee gauche wala daa tàmbalee ci li nga xam ne mooy digg digg kon ñii ñoo xamoon kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax seeni jëf ak seeni wax ak seeni jëflante lépp dañ ko doon royee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dañoo gëmoon yàlla ci boppam moo ne wa in tutiuhu tahtaduu boo leen di topp yonent bi sallallahu alayhi rek daal di jóg ñu déggee ci ne kon ñàkk topp yonent bi sallallahu alayhi lu muy jural nit ki mooy du jub mooy ab ndëngte rek la koy jural loolu moo tax salafu saalih dañu doon góorgóorlu di jaamu borom bi subhanahu wa taala waaye loolu lañ gën a soxla nag mooy ñu daal di amee li nga xam ne moom mooy ak taqwa ci weer kon mbokk yi ku nekk na xool ndax taqwa boobu borom subhanahu wa taala di diggee ci li nga xam ne moom mooy weeru koor xoolal ndax bu mu ci yow wala ñëwul ci yow ku nekk mun na jàllal sa bopp ndax la ma nekkoon avant weeru koor maa ngi ci ba tey wala bàyyi naa ko ndax buñ naan ragal yàlla comme ni ko borom xam-xam mooy nit ki di jëfe ndigal ya di bàyyi nga xam ne moom mooy tere bu weeru koor nag li tax mu nekk li nga xam ne day joxe am ragal yàlla loolu la dagaloon ci yow lañ ne la lii de mu jën a xaraam ci yow xanaa ku mën a bàyyi la dagan ci moom dëgg dëgg kon la xaraam ci moom taxut ñuy wax kon lool ci dafa bokk ci li nga xam ne salafu saalih dañ ko doon jéem a góorgóorlu waaye la gën am solo ci ñoom nag mooy ku nekk danañ jàppee ne weeru koor bi mooy sama mujjanteel li nga xam ne moom mooy nii la salafu saalih doon dundee li nga xam ne moom mooy weeru koor ci ab gàttal rek nag buñ ko doon jël nag mun nañ fee yendu ci am gàttal rek kon dañ daan salafu saalih dañoo jàppoon weeru koor ak jaamu yàlla jàppoon ko ak traite waaye jàppoon ko li nga xam ne moom mooy weeru koor mu kon yàlla borom subhanahu wa taala fayal ñu li nga xam ne mooy mag ñooñee muy salafu saali tàmbale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek ñetti génération yi nga xam ne ñoo ñëw seen ginnaaw waaw xanaa ñu bëggoon ci lislaam comme ni ko waxee ko mm-hmm. wax kenn mënut a def lu leen def mm-hmm. seen forme mm-hmm. waaye dañoo gis nañu Sénégalais yi ñu ëpp ci ñun maanaam ñoom daal xamuñu leen itteewul seen i mbir léeg-léeg. Hmm. da nga gis nit ki sax mën na yëkkati nit. Hmm. maanaam jox ay mbir yoo bu xamoon. ñi hmm. ngay waxtaanee nii. jàpp naa ne mbir mi moo tax tey. Sénégal yi umpale ñii. te ñii xam leen. maanaam dafa war ab jullit. ndax ñoom ñii ñenn ñoo doon dagee dugg xam na ba ci toog dugg salaa salaam dafa am lu mu leen garanteel. mooy ñi gën. mooy li may dundal di hmm. kon lan moo tax léegi hmm. umpule ñooñu ak it moom jàpp naa li mu ñu ñëpp gis hmm. lan lan war a def wala bu yéen borom xam-xam yi lan ngeen war a def ci yoon bi waa ala kulli xaal ñi tax nga xam ne ñoom ñooy mag ñoo dañ leen présenté yeneen mag ñu bokkul ak mag ñoo ñee xamal leen yeneen mag ñu mag ñoo ñu jàpp ne mag ñi ñoom ñooy mag ñi loolu mooy li ci njëkk ñaareel bi na xam nañ ne bis bu ñi nga xam ne mooy mag ñi am na ñoo xam ne dootuñu leen jàppee ay mag lañu dañ leen di jàppee ay xale donte nag wax dëgg si yàlla ñooñu amaana am na fu ñu féete diine waaye nag ñàkk xamal nit ñi ñi nga xam ne ñoo doon dund ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax jullit ñi amatuñ li nga xam ne mooy royukaay ndax xam ñii yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñamu yar xam leen dana tax benn doomu aadama bu naree indi lu juñoo ñi nga xam ne mooy ñooñee nga xam ne kon kii ab xale la te xale bu mu fa tegg loo xam ne mag moo ko indi mu ko fiñ teg kon loolu mooy li ci jiitu mooy ñàkk xam waaye muy li ci gën a yéeme mooy julli ñi ñàkk a yittewoo seen i diine ñu topp ñu leen di nettalil ay nettali yoo xam ne kenn xamul nettali lan la ndax amaana buñ leen doon nettali saxaaba yi xayaati saxaaba borom xam-xam yi rek leeral leen nit ñi kan mooy saxaaba yi da nekk ci ab gox laajte kan mooy Abu Hurayra munuñ la wax kan mooy Abu Hurayra Abu Bakr na xamuñ ci lu tur bi ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam munu la wax kii mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te boo ko laajoon bàyyi mooy kan mun na laa wax ba wax la fan la juddoo ñaata at la am ñaata doom la am te xamoo bi nga xam ne mooy li nga xam ne moom mooy wootekat yi mhm. moo ñu jàngalaat nit ñi mhm. xamal leen kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. ndax bu ñu xamee xam ñan la war a yar comme ni yonent bi la ñu war a mel ñu jàngal leen ñan ñooy saxaaba yi xayaatu saxaaba ñu jàngal ko ba nit xam saxaaba yi naka lañ doon dundee ak naka lañ doon mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak naka lañ doon yaa mooy borom subhanahu wa kon xam naa dañuy. waaw sànni mhm. ngay tëjee waaw. ñuy tëjee mooy amal mbégte ak kontaan ci li nga xam ne moom mooy seen mbir yi Laayante Biir TV di am mbégte ak kontaan lool di leen ñaanal borom subhanahu wa sàmm leen yokk leen yëkkati li nga xam ne moom mooy kër gi ba mujjee nekk ak télé boo xam ne télé bu rëy lay doon. waaye di saabu suñu mbokku jullit ñoom ñu abonné ci li nga xam ne moom mooy seen bii di li nga xam ne moom mooy Laayen TV TV ndax li ko jël tax a jóg mooy lislaam ak lépp loo xam ne njariñu doomu aadama la àddina ak allah yàlla borom subhanahu wa def ko ci kër gi waaye def ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo koy taxawu ndax ay julit lañu ay ndaw la yoo xam ne ñu leen tax a jóg rek mooy tasaare diine borom subhanahu wa taala si kémtu seen kémtulaay kàttan yàlla na borom subhanahu wa taala defal leen tawfiq defal ñu ko xaada wa sala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa